waaw waaw ñun ay sabotage lañ fay nañ si kaw si arabi nii donc camion bi muy ñëw dafa yeb ñaari conteneur donc virage bi dafa ñëw si virage bi ak doole virage bi moo ko sànni donc léegi nag bi nga ko sànnee ñaari conteneur yi dañ ko da koo lëng mu dem ñaari conteneur down, dal si Njaga Njaay bi Njaga Njaay moom moom da ko fekkoon mu gaare waaw léegi conteneur yi moo dal si kawam am na ko ci gaañu sax ba tànk bi daa mujj dagg dagg ñun doon génne si weñ yi fële weñ yi daa mujj daanu ba tànk bi am problème sappoor ñoo ko mujj yóbbu camion bi diw gi mu yàpp moom moom dafa ñëw pour yóbbu ko diw gi mu yàpp moo nekkoon si biir conteneur bi conteneur bi mu daanoo si si diw gi génn yaa ngi dégg wax bi am na beneen beneen oto oto bu gaara mooy mooy oto ba sa ginnaaw si la dóor conteneur bi après nag mu ànd glissé ak camion bi dem mais camion plateforme moom moo yeboon mooy moom mooy yóbboo ñaari conteneur yi no am na ko si gaañu moom gaañu bi métti ba dañ ko yóbbu moom moom tànk bi a dagg ba gars yi mu jukka si ba gars yi ko si bi daaj ba mu a dem mais gaañu no gaañu bi métti moom vraiment moom moom métti na moom dese moom gisuma ma ñëwee ba tourné ci padowa bi dama crevé bi ma crewee ma ma taxaw pour desserrer pneu bi après conteneur bi wàcc manqué équilibre ci la dal ci kaw bis bi. waaw dafa fekk ma taxaw dafa fekk ma wàcc pour defar sama pneu mu dal ci kaw kii bi mais bis bi man rek maa ci nekkoon. non non non amul mort bis bi man rek maa ci nekkoon.